di naqarlu rek continuer di naqarlu li nga xam ne tey jii état du Sénégal mi ngi koy def impacte terre yi taxe mën na quatre ans ñuy daw derrière suñu terrain quatre ans ñuy daw derrière suñuy sec d'accompagnement social et de vulnérabilité les pertes de revenus locatifs yi nga xam ni tey jii nit ñi impacté yi doon nañ luwee seen kër ñu waral leen ko multiplier par six ñu fay leen ko ba léegi fayaguñ ci kenn li nga xam ni suñuy terrain la ba ñu séddoo terrain yi ba léegi fu mu may wax ak ni kenn gisagul terrain ñuy interpeller le président de la de la république ci li nga xam ni tey jii moom la ñu waxoon digg ñu ko ci différents audience su ñu am ak moom mi ni ñu woon dinañ leen régler suñu problème nu mu gën a gaawee dara avancé wul ci dossier bi ay promesse yu dul jeex nañ ñu def c'est la énième fois ñuy yuuxu ces vieux là dañoo sonn ils sont fatigués il faut pas c'est parce que dañoo dëkk banlieue combien de projets moo fi et wuñ leen joxuñu leen ni seen i titre et eh, nous c'est nous ñun ñoo fi jëkk bercé ñun lu ñu fas yéene def mooy dañu leen di bett di def suñu action nag répétitive quitte à ce qu'on y laisse nos ñu bàyyi sa suñu bakkan